asalaamaaleykum wa rahmatulah mbokk internautes yi ñu ngi leen di nuyu di leen ziar leen ñaanal jàmm di ko sàkku ci yéen tey nag ñu ngi toogaat ak Mbaye Diop moom mooy président écurie Fass Benno li waral jotaay bi nag mooy mbërëm di aada ko ne xam na ne fan yi mu ngi nekkoon ci xarxat yoon teewoon ko waaye nag daa mel ni bàyyi nañ ko information boobu la ñu am moo tax ñu ñëw bëgg ci gën a am ay leeral comme moom moo jiite écurie bi mbay ñu ngi lay nuy di la ziar. Babacar maa ngi lay sant di la gërëm di nuyu waa àdduna waa di sant ñëpp gërëm ñëpp. Euh, di rafet rafetlu taxawaay waa sant nañ leen daal bu baax a baax a baax waaw li xew nag moom ñun ñëpp ko gisandoo waaw mu doon loo xamante ne vraiment dañ si bëgg lool lool lool waaw di xamal ñëpp ne rek dëgg mooy mujj waaw dëgg mooy mujj waaw loolu daal laa mën a wax fa laa mën a yem. kon aada bàyyi nañ ko daal loolu moom c'est confirmé. waaw c'est confirmé bàyyi nañ ko yegsi na ñu mi ngi si ay mbokkam yegsi na si ay mbokkam mu ngi si jàmm ak salaam bu yaatu. loolu kañ la tey. waaw tey jii la. waa tey lañ ko bàyyi. bàyyi bi ci fu ñu maanaam ci lan la maanaam grâce la wala arte bi ñu ko àtte woon la ñu xoolaat àttewaat ko wala lan la. waaw xam nga dañu amoon ñaari alternative waaw muy déglu grâce bu ñu amee grâce sant yàlla bu ñu ko amul tam pare woon nañ pour dugal appel te xamoon nañ ne bu ñu dugalee appel dinañ ko bàyyi waaw ndax gëm nañ ne liñ ko li ñu teg ci kawam loolu maanaam du du du lu am waaw li ñu teg ci kawam dara amu ci ndax aada moom li ma la rek ñun duñ ko far ci dara. loo xamante ne du yoon duñ ko ci far waaye nag bu defee bu fekkee dañu teg dara ci kawam tamit te defu ko sañ nañoo taxaw défendre ko waa ba ba ba sori ji moo moo waral ñu doxalee noonu. Mm-hmm. kon su ma la déggee da ngeen def appel wala grace bi moo ko mujjee libéré. waaw grâce bi moo ko mujjee libéré waaw ndax appel bi normalement tey lañ ko war a dugal waaw tey lañ ko war a dugal ndax 30 jours la ñu am pour dugal ko waaw donc le 29 moo noon délai waaw délai bi le 29 la waroon jeex le 29 bu passé woon te dugal nañu appel. donc appel dootul mënati am waaw léegi nag dañu noon xool entre appel bi ak grâce bi waaye yàlla def na li gën muy grâce waaw bu amul woon nag ñu def appel waaye yàlla def na li gën ñu ngi sant ñi si taxaw ñëpp di sant autorité yeex di sant ñëpp Sénégal yëpp ñu ngi sant àdduna waaw ñi si taxaw vraiment gis nañ taxawaay waaw commune bi xam nga ah, Thierno Ndiaye ñu ngi koy sant spécialement ndax taxaw na si waaw ah, Thierno Ndiaye bu Colobane taxaw na si bu baax a baax waaw ñoom ñoom daal vraiment taxaw nañ si ndax aada moom aada ndakaaru la waa ñoom Bamba Faalax monsieur le maire Ibrahima euh, euh, euh, kii nu mu tudd Pay monsieur Pay waaw ñu ngi koy sant bu baax a baax moom it si taxawaayam. Abdou Aziz waaw su ma dégg nga waxee noonu kon ci grâce beeg yu mel ni ki doonu est-ce que nit ñi duñu xalaat ne kon loxo bu gudde ci dugg wala yu mel ni ki doon ba tax ñu bàkko wala. waaw xam nga grâce moom dañ koy saytu grâce du daf lay neex rek nga joxañ nit ne jox naa ko waaw ku nekk dañuy xool sa dossier bala ñu la jox grâce duñu tëf rek joxe noonu waaw donc bu amee dafa war a am te ki koy joxe tamit kenn la koo xamante ne ku mu jox grâce vraiment jox na la ko may na la ko dafa mel ne sa alal tey nga yëkkati ko maye ko waa kon nag bu ñu ko mayee grâce dañ koy sant di ko gërëm moom mi ko maye di sant ñi si jàpp ñëpp ak ñi si wax ñëpp wax dëgg yàlla ñu ngi siy sant ñëpp di gërëm ñëpp am na solo mais su ma la déggee ci sa biir wax tamit dafa mel ni ci li ngay wax daa mel ni aada liñ ko jàppe woon wala liñ ko doon toppee ba àtte ko ba tëj ko su ma lay dégg daal dafa mel ni du lu mu def. non non loolu moom du lu mu def su ko defoon nag keroog wax naa ko euh, 2STV bi di santaale Modou Mbaye ndax am na si taxawaay bu am solo waaw moom dañ koy sant spécialement waaw taxawaay bu am solo la ci taxaw keroog dama ko ne bu fekkonte ne dafa tooñ ñun dañ koy bàyyi ñu yar ko. ndax xale la mun na si yoon bu defee ndaka sulul noonu dañ ko war a yar teg ko ci yoon comme ñëpp mais nag bu ñu xamee ne aussi wax dëgg yàlla dañ ko tooñ li ñu mën a def mooy jóg taxaw waxal ñi ñu war a waxal ñëpp woo ñi war a woo ñëpp waaw moo waral ñuy sant euh, vraiment ñi nga xamante ne dañu sori lool si ñun te jege ko ci mel ne Balla gay dañ koy sant di ko gërëm. Balla gay 2 Balla gay 2. dañ ko suñu leen taxaw. ah moom kañ ñëpp gis nañ ko àdduna gis nañ ko waaw ndax euh, mbir moom bu amee ñi ciy wax dañ leen di xool. ñiy jëf dañ leen xool ñi xamante ne ñi ngi ci suuf ñi ngi ñi ngi dox mais ñi ngi koy dox ci suuf dañ leen di gis waaw moom nag dafa feesal taxawaayam waaw mbër yu mag yëpp moo si njëkk wax moo si njëkk communiqué defe naa yaa ko déggoon micro sax dafa mel ni waaw fële drapeau chef de l'état Ndar kon nag dañ koy sant di ko gërëm di ko beral cantam moom bala Gaye 2 waaw di sant nag mbër yi nga xamante ne ay mbër yu ndaw lañ papa booy jinne ah Laurent Ndiago spécialement Laurent Ndiago maa ngi ñëw ci moom waaw Laurent maa ngi ñëw ci moom caatu ngéwal Giro Seras mbër yooyu yëpp daanaka eh, ba ci ba ci ba ci euh, Bébé Diène waaw Bébé wax dëgg yàlla taxawaayam dafa rafet moo njëkk ñëw mbuur ci mbër moom kese moo fi mës a ñëw mbër mu jóge fii dem ba mbuur seeti aada te ku ne xam na diggante ma aada laata commencé woon na waaye dafa def benn un grand en avant waaw loolu nag moom wax dëgg yàlla euh, xam naa ne dina tàmbale lu bees loo xamante ne diggante bi dina gën a rafetal diggante bi incha allah ndax def na lu rafet loo xamante ne ñi ko doon séntu si mbër yu mag yi ñi ko doon séntu tey si ñi nga xamante ne ñoo jiite ñi ngi ko doon séntu tey si ñi nga xamante ne tey ñoom la seen loxo gudd wala ñoom la ñu wax ne seen loxo gudd na ba mën a yegg fenn foofu la ñu doon séntu xeetu communication bi mu def waaw Laurent Ndiago nag mënu moo wax ci moom moom àdduna ñoo ko sant waaw àdduna ñoo ko sant waaw ñu ngi koy sant di ko gërëm bu baax a baax a baax am na solo euh, Laurent Ndiago àdduna ñu ngi koy sant comme ni nga ko waxee ak ñoom Balla Gaye ak Bébé ak ñi ci taxaw ñëpp tamit parce que àddina moom noonu la ñoom ñoo bokk milieu bi defe naa ku ñu ne ci xat-xat sa moroom war na la mën taxaw pour nga génn ci loolu mais tey après lii avenir làmb la comme ni ko Sénégal yëpp tey tamit lii lan ngeen ci war a jàngat yéen ñu ko yilif moom en tant que mbër tamit tey boo koy digtal wala ngay digtal ñu mel ni ki moom tey lan la avenir bi war a doon ci aada ak combat bi m jëm. waaw li may njëkk wax mooy euh, jaar jaar bi mu jaar fi mu jógee nii. li ñu tuddee kaso waaw gis naa ne am na lu mu def si moom ndax aada ku ko gis tey ba su tey ji ku ko gis xool ko xam ne am na lu bari lu soppeeku ci moom waxee nga déglu ko xam ne am na lu soppeeku ci moom kon jaar-jaar bi euh, dañ koy maanaam duñ koo féetale si lu négatif waaw dañ koy féetalee ci lu positif ndax am na lu bari lu mu defaat ci moom ndax toll na tamit jamono boo xamante ne wax dëgg yàlla euh, boo ko seetloo tey bari na ñoo xamante ne aada rëccoon na leen waaw neexul loon canaliser neexul woon téye loolu yëpp affaire de fougue de jeunesse ak yu demee noonu donc bu demee nii tey ba yàlla téye ko dugal ko ci lii muy niru nattu yaa ngi dégg mu dugal ko ci ba tey mu génnee ko ñu gis soppee ko si moom vraiment dañuy sant si jaar-jaar boobu waaw quant à avenir am la aada euh, xale la xale bu ndaw la waaw ah, ku am vingt cinq ans def cinq ans ci lamb toll fii nga toll nii nekk si ay treizième combat kooku wax dëgg yàlla dese lu bëri ndax keroog dama wax ni am na mbër yoo xamante ne toog nañ ñetti at bëriwuñu ndax blessure ñii toog nañu année blanche quatre ans année blanche ñii tukki nañ cinq ans wala six ans kaaw Zarko dellu si waat tey waat làmb kon aada tey même bu fa tëddoon un du yàq dara si carrière am dama gëm ne luy defar la waa defar gi nag fii la yem su doon dafa war a yegg ci un yi dafay yegg yàlla moo ko yemale fii kon dañu jàpp ne lañ doon uti kaso ñun ndax kaso dafa lu fa ne lu fa ne loo xamante ne kenn ku ne bëgg na mun na si yow yaa ngi dégg xëy na ñemewuloo kaso wala bëgguloo jaar kaso waaye am na loo xamante ne mu ngi kaso te kaso rek la am yaa ngi dégg waaw moom nag dem na jëli ko indi na ko. loolu luy jëriñ doomu aadama. ah bien sûr kaso dafay defar lu bëri lu bëri bëri na ñoo xamante ne tey si kaso la defaroo am na ñoo xamante ne kaso la fere ijji ñii kaso lañu xamee àdduna ñii kaso lañu xamee lan mooy muñ ak lan mooy noot sa bopp tarbiya sa bopp. loolu yëpp si kaso lañ ko xamee ah tey li tax nit nga koy dugal kaso rek mu am nu mu demee mais parce que tàmmul yan yi wala préparé wul boppam si yan yi mais aada dafa ànd ak moral bu yaatu yaa ngi dégg bu ñu demee seetlu yu ko kër jeudi bi passé dem nañ fa jàkkaarloo moom man boobu la sama xel dal ndax dama ne liñ aada li ma mënoo uti ji am na ko te fii la ko amee. waa da gis beneen nit bu soppeeku. aada laa gis man beneen aada te li may wax ni euh, ñi ma war a déglu après dinañ ma déglu te xam nañ ne lii laa wax. ndax wax naa leen ko bi ma ñëwee laal ne man aada bi ma gis aada bu serein laa gis aada bu àndax moral laa gis aada bu set wécc laa gis aada boo xamante ne daanaka bu àndax forme bu rafet normal yaa ngi dégg ak moral moral bi daal moom dafa yaatu waa ndax nit nañ la dugal kaso gis ngay triste di kii wax xam nga wala di feebarantoo di yu demee noonu mais bi ñu demee gis ko ñun suñu xel dafa dal waaw dama ne sax kii fii daanaka nee naa ko yow hôtel nga nekk fii da fi ñëw pour dalu jàppal nañ si hôtel nga nekk da nga ñëw dalu ba du da bu bu bu kii bi jeexee nga génn at jeex na. Mhm. am na solo euh, loolu am na ah, ñu ngi ñuy ñi fa nekk ñëpp détenu yi dina ñaanal jàmm di wax que ni ñoom tamit ah yàlla leen fa yàlla génne te ku ci yàlla génne tamit yàlla boo def luy tax nga demaat fa mhm. mais tey yaakaar naa ne mu ngi jëm tamit ci eh, combat digganteem ak Zos mhm. yor avance su promoteur muy waa jàmbaar production tey. loo koy dolliwaat ci digganteem ak promoteur bi mu seqal signé ak moom ak itam adversaire bi mu dëgmal muy Zoss te Zoss yaakaar naa ne dafa bëgg a dikkaat ci làmb moo tax mu jël Ada Fass waaw loolu moom euh, mbiru làmb la mbiru làmb la te aada miin na miin na làmb xam na làmb xam na nu muy préparé combat am combat bi nag euh, ñi ngoon ci problème ay dat ak yu demee noonu ñi ngi déglu promoteur bi waaw lu mu wax bu ko communiquer ñun dinañ xool naka la ñuy euh, envisager combat bi waaw ba ba engagé ko mais daal xam naa ne aada moom combat du ko combat bi du ko bett. déedéet du ko bett si dara fa la mu nekkoon mu ngi fa di entraîné di def lépp lu mu war a def. waaw donc combat bi gëmuñu ne dina ko bett benn yoon. waaw su amoon mois prochain sax amaana tamit mu mën ko bëri da koy bëri. waaw ndax bëri mooy métier am. bëri moo ko tax a jóg. kon wax dëgg yàlla avance bi tegu na li si des moom du dara lu dul bëri ji. waaw te daan ñibbi aussi. Euh, am na solo mais du ma jeexal tamit te dikk te dikkaatuma ci par rapport ak ñi nga xam ne dafa ñu ngi naan aada euh, coow yi aada soxna si jàppal bàyyi daal yu bare bari nit di ci dugg ñooñu tamit loo leen di wax lan ngay wax ni nga xam ne des fois dañuy am ne lu ñuy waxee noo xam ne nii ah bon xëy na seen xalaat la may yow ñooñu ban message nga leen di sànni. waaw loolu nag boo boo ko seetloo ñu si bëri euh, ñu bëgg aada lañ waa ñiy wax ñëpp si aada dañ koy bëgg des fois bëri na ñoo xamante ne dañ ko bëgg nu ñu ko xam nga waaw dafay dañ koy bëgg ba mënuñu ko daal maanaam di gérer bu defee yenn yi rek wala mu bu defee wax waxee naka sunu noonu dañuy am nu ñu demee waaw loolu bëgg rek la waa léegi nag moom mooy am njàngat rek ci loolu waaw moom mooy màgg soppeeku changé xam fan lay teg tànkam yaa ngi dégg ñi taxaw pour gunge ko bëri nañ waaw ñi taxaw pour canaliser ko teg ko si yoon bëri nañ waaw ñu ngi sant euh, vraiment euh, waa Fass benn bi yëpp d'abord waa Pam Wodj vraiment taxaw na si taxaw bu rafet muy suñu trésorier général Adama Soumaré waaw moom chargé de la communication nee na ma sax mi ngi ñëw xamaana mu fekkee leen fi xëy na waaw ñoom ñëpp Matar Fayax Djili Dieng xam nga El Hadj Koundoul ñoom ñëpp daal vraiment ñu ngi sant bu ñu rek extérieur ñoom Thian wax xam nga ñoom Elo ñoom ñëpp daal vraiment euh, dañ ci taxaw Zakaria Djili mbay ñoom ñëpp dañ leen sant di leen gërëm waaw ndax euh, euh, bëri na loo xamante ne daal ah, ñu ngi koy def si suuf te vraiment defaluñ ko kenn ku dul mbër mi kon moom rek moo war a xam instant bi voilà xam ay nitam xam ñi mu war a àndal xam fi mu war a dem ak fi mu war a teg tànkam xam nga ñu ngi sant nag Fadam aussi Fadam 2 waaw Fadam 2 moom vraiment tam taxaw na si ndax maa ngi koy wax sànq maa ngi koy woo sax fekk mu ngi Instagram waa mais taxaw na si taxawaay bu rafet ah, wax na xam nga publiquement ñëpp dégg même fi nga xamante ne amul occasion wax sax fexe na ba wax waa fexe na ba wax vraiment dañ koy sant di ko gërëm. di sant ñoom Jackie Fallou solution di sant Ousmane Noreni ak Abakara ñooñu ñaar ñooñu moom vraiment chapeau Ousmane Noreni ak Abakara waa di sant nag euh, groupe bi nga xamante ne dañ ko créé woon muy soutien à Ada groupe boobu may wax ñëpp ne rek loo xamante ne dañ koy tasaat waaw soutenir nañ ko ba yàlla def na li gën muy génnee na ko dañ koy accompagner nag vraiment dem jëli ndam li su ma leen ndam li nag ay combat taxul ñuy wax waaw li ñu bëgg moom wax dëgg yàlla wax nañ ko ñëpp roi de arènes la ñu bëgg te am nañ yaakaar si suñu mbër bu tegoo si tànk yi ñu bëgg mu tegu ñu encadré ko dina indi roi des arènes fii ci Fass waaw. encadré mbër yomb na rawatina mbër bu mel ni aada. moom wax dëgg yàlla mosula yomb. waaw encadré ko mosul yomb waaye nag li ma waxoon keroog laay wax tam ku ñuy digal nag ngay dégg kenn mënul fexe ba doo jëriñu waaye bu ñu lay digal nag te doo te doo dégg liñ lay digal kenn mënul tax tam nga jëriñu waaw donc buñ lay digal daal ngay dégg di nga jëriñu bu buñ lay digal te doo dégg doo mën jëriñu waaw donc ndigal kese la ñu defal lii nga def tegal fi sa tànk nga teg ndax gars yi duñ la dugal foo xamante ne du sa yoon duñ la wax looloo xam ne waroo ko wax duñ la saraxe dañu lay teg si yoon loo war a wax nga ñëw concerté gars yi ñu wax a yow ne li nga war a wax su wax jotee nag laay wax du toujours sax nga war a wax du toujours xam nga léegi am na loo moom am lu ma la wax ci côté boobu waa ndax wax jotul ci moom wax jotul ci moom waaw ndax fi mu ne nii dañu bëgg vraiment encadré waat ko ci beneen façon beneen anam waaw yu bëri yu mënoon def nga xamante ne mbiru xale rek la woon yooyu ñu jël ko teg ko suñu ginnaaw xam ne xale day juum day def ay erreur day def ay défaut xam nga mais nag kii juum mooy jégalu aussi kii jégalu dañ koy jégal yàlla dañ koy jégalu mu jégal la kon kii tooñ wala mu mu def erreur wala mu def ay défaut yu demee noonu xam nga bu jéggaloo dañ ko war a jéggal waaw jéggal boo jéggaloo ba pare ba ñu jéggal la nga tegu si yoon boo xamante ne doo ndax bàyyi jëfe moo gën dëkkee jéggalu waaw maa ngi jéggalu maa ngi jéggalu boo gis dañu ne jëfe ndigal moo gën dëkkee jéggalu saa su ne maa ngi jéggalu waaw bàyyi tere yi daal moo gën waaw na solo euh, yaakaar naa tey sa kàddu mujj lay doon waaw fi mu ne daal dañuy santaat euh, ëxlu làmb yëpp waaw ñi si taxaw ñi am yéene ñi nga xamante ne vraiment bëgg nañ si taxaw te ñemewuñu fees sax wala bëgguñu ñu xam ne ñu ngi ciy def lii wala ñaap ñu ngi leen sant am na ñuy taxaw ci suuf am na ñuy dox ci suuf am na ñuy wax ci kaw ñëpp ñu ngi sant ñëpp. waaw ñu ngi sant Momar Momar Gueye waaw moom agent la si Ada Fass di conseiller am ak yëpp moom it ñu ngi koy sant xam nga di sant daal vraiment euh, Basirou baabu waa ñoom ñëpp mbay jaañ président voilà ñu ngi koy sant ancien président waa ji nouveau président aussi Bourkhane Wade ñoom ñoom ñu ngi leen sant waaw ah, di sant euh, Bëgg Fallou Grand Yoff waaw ah, ñoom ñëpp vraiment dañ lay woo di la réconforter di la laaj di la xam nga xam nga dafa dafa kii dafa am lu muy def daal voilà loolu rek soutien la ndax am na loo xamante ne mbiru yoon la kenn mënu si dara comme ni ko suñu père Bekaay waxee am na loo xam ne mbiru yoon la kenn mënu si wax wala nga si am nooy wane mais di woo nit ki di ko réconforter dafay gën dafay baax waaw moom it ñu ngi koy sant bu baax a baax waa ndax euh, moom bu ma nee ñu koy sant rek li ma cant gi yëpp dama koy jël dénk ko Modou Mbaye waaw ndax euh, dañu ne yu yu rafet yi mooy nëbb yenn yi xam nga kon moom dañ koy sant dañ koy sant ndax Bécaye moom kenn gënu ko bëgg Ada Fass moom moo njëkk a dékk micro Ada Fass keroog ñu ngi koy waxtaanee ñun suñu biir moo ko njëkk a dékk micro deuxième combat am nan ko booy noo ko daanee Ada ne ko Fass laa dëkk mu ne ko booy waxuma loolu noo ko daanee mu ne ko Bécaye bi laay Fass laa dëkk booy nag nga ko daanee lañ la mu ne ko bi laay Fass laa dëkk xam nga boobu deuxième combat aada la aada mu ngi doon lu tuuti mu ne xale bi bàyyi leen ko xel avenir la xam nga mu wax ci moom lu rafet waaw donc loolu yooyu noonu ñun duñ ko fàtte man mii di wax man mii di président bi Bécaye moom mu njëkk jox micro ma wax ci mbiru làmb en 2009 décembre 2009 moom sax mën na fàtte loolu 2STV Albert Sarro boobu ñu ngi préparé suñu suñu suñu kii nu mu tudd euh, mbapat bi ñu doon def mbapat bi ñu créé écurie bi war a def benn mbapat bu mag nga xamante ne garga deux mi tey moo ko jëloon benn bi yëgin yëgin deux jël benn bi hmm? ñoom ñëpp ñu ngi foofu ñoom ñoom euh, bëri na mbër yi fi jaaroon ñoo xamante tey ñu ngi leen gis nii ci arène bi xam nga fii la woon ci Fass donc loolu noonu fàttewuñ ko ñun duñu voilà duñu suul jëf waaw duñu suul jëf duñ koy sant di ko gërëm di sant àdduna yëpp di sant ëxlu làmb yëpp di sant waa Fass yëpp wax dëgg yàlla xam nga ñi nga xamante ne ñu ngi doon defar ci suuf ñu ngi leen di sant ñi doon wax ci kaw ñi leen sant ñi fésal seen euh, kàddu ñi ngi leen sant ñu ngi sant ñëpp di këram ñëpp waaw bëggu moon lim ndax fi mu ne nii suma ma paree dinaa ne diw fàtte naa ko ndax ñi si jàpp dañu bëri waaw waaw mais ñi si jàpp dafa am ñoo xam ne nga leen tudd ndax dañ si jàpp uh-huh. waaw dañ si jàpp dañu si jàpp guddi ak bëccëg xam nga am na ñoo xamante ne tey réunion du ñu tardé bu ñu nee nangam bu ñu tardé bu ñu nee nañu def xam nga acte bu ñu teg ñu ngi si kon ñooñu mënuñu lu dul sant leen gërëm leen wax dëgg yàlla yow ñu ngi lay sant di la gërëm Babacar waaw ñu ngi lay sant bu baax a baax di la gërëm di sant sa caméraman man jërë ngeen jëf sant nañ bu baax a baax jëf jaajëf kooku mooy euh, Mbaye Diop président Fass Benno yaakaar naa ne comme ni mu ko waxee rek. Hmm, genn golo gudd na mais loo ci laal borom yëg ko ñun ñëpp ñoo bokk Sénégal et puis ñoo bokk làmb lu daal kenn ki rek ñi ci des ñëpp dañ koy yëg kon defe naa comme ni mu ko waxee moo si nekk rek ñi si jàpp ñëpp ba ah, sant yàlla di ñaan rek njuumte moom du wes si doomu aadama ñun ñëpp mën nañoo juum fekk yaa ngi dund rek lu la gaar mën naa am mais dañu ñaan yàlla rek yàlla nañu yàlla muccal te ñuy moytu loolu rek moo fi nekk mais ku nekk saa yoo xëyee jàppal ne yii moom sori woo ko sa bakkan mën naa dem et puis mën ngaa def lu la dugal mën ngaa tarxis dugg ci loxoy yoon yooyu yëpp nag ah li nu mën a def kon mooy muslu tey moytu ndax yàllaay mucc mooy mooy musle moytu nag ñun jaam yi ñoo koy def kon ne nañ yàlla may xel mu nuy moytoo waaye tamit di ñaan yàlla mu di ñu muccal vraiment père Bécaye moom itam wax dëgg yàlla comme ni mu ko waxee suñu papa la suñu tonton nit ku baax la koo xam ne yaakaar naa ne euh, yàlla barkeel na ko ndax nag mbër bu mu la ne bàyyi ko xel bàyyi ko xel kon père ñu ngi lay béggee di nuyu Modou mbay ak tout Fadam ñoom comme ni ko Mbaye Diop limee parce que ñun gis nañ sest yi ak mbër yi jàpp ñoom ñëpp comme ni mu ko waxee Balla Gaye di nag moo ko aada xam naa ne daa am lu dox seen diggante ci wàllu soppante te loolu des fois day feeñ parce que olof ne lu réer ci xool rek mën na feeñ ci xar kanam noonu la demee kon gars yi aada jàmm ñu ñaanal la yàlla nga préparé sa combat ak Zos ngeen bëree ko que gañ meilleur loolu rek la ñuy wax di ñaanal ñëpp jàmm di balu ñëpp àq